le président de la république mi ngi changé considérablement vie yu baykatu Sénégal kii reñam rek ngay gis baykat yoo xamante ni léegi am nañ possibilité di dawal ay 4 x am nañ possibilité di conserver seen ay produits parce que dernièrement rek espace de stockage bi nekk jam ñaaju kenn ku nekk gis na ko ñu doon wax naan seen soble day yàq ci àll bi ñoo ñëpp dafa nañeen sa ay grand magasin de stockage yaakaar naa ni ñëpp teg nañ ci seen bë hmm, bi may bu fekkente ni président de la République Macky Sall dafa ñëw daan ne Sénégal dama koo bëgg a jëme kanam dama bëgg Sénégal nekk réew mu émergent daal di tënk ab document 2014 daal di koy tuddee PSE plan Sénégal émergent daal ni yéen kat bu ngeen ma toppee ci lii di 2035 le Sénégal sera un pays émergent mu dox ay jéego jëm ci lool te kenn ku nekk xam na ni réew bu fekkente ni da ngay indi ay réforme ci économie bi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 bu boobaa bu demee foofu ñooñu mën ñooñu mën cee ànd loolu mën a def c'est important parce que saa ne sert à rien ñu jël pouvoir exécutif ci suñuy réew yi confier ko kenn jël beneen pouvoir confier ko keneen